لم يكن المصطفى محمد سرا وجل في البرايا صمدي àddina bépp lay woo ñu ñëw tey jii sant leen Serigne Touba fii ci Gabon. monde bépp lañ la ñuy invité ndax lii wax dëgg yàlla mën ñoo fay Serigne Touba mën lu ko fay. 18 safar la ñuy waajal waaye 18 safar ba Serigne bi jóge Sénégal destination bi Gabon ki la woon. kon waa Gabon kenn war leen mën ci waajal màggal yal nañu yàlla dimbali ba boole ñu si peloton nekk ci kanam. Gabon nag kenn ku ne xam na diggante Serigne Touba ak Gabon li lay xat wasantu inda gawaa fii la saaxali xay laaw fii Mayumba fii Gabon la yasaral yi mun naa laa daal Libreville fii Libreville la. ñun waa Gabon nag ñu ngi woo àddina bépp ku bëgg aaj ci faju ju gaaw. bis bi ñuy woote foo mën a nekk jar na mela su ñëw wuy si sëñ Tuubaa bi yëpp ñu ngi ci woo ñëpp xam ne liggéey sëñ Tuubaa day li féetee kaw lu jaam doon def ci kaw suuf leen di woo ci waajtaayu màggal ñuy amal fii ci Touba Gabon ak li ko weer ndigal la bàyyi ko sëñ Sidi Muxtaar jaar ci sëriñ Bass Abdou Khadre nga xam ne moo di ay loxoom di ay tànkam ñu ñaan yàlla suñu borom yi ñu sax jàmm ñu si woo bépp jullit bu mën di dégg suñu kàddu gi ñu dajee seet jàppal xolaa bi suñ ci waa diggee woon ci yoonam wi ndax daa xam ne lii kon bi kon sarmadan wajal masiri yasa jàppal xolaa lil wara mislal maxaarey ñu leen di te ñaanal si borom defal ñu seen tawfiq ci mbiru Serigne Touba kenn du ko ci man ñu am yaakaar ci bii nag ni kenn du ko ci man di ko yëgal ñëpp di ko yëgal fépp bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn ci li ñu dal sey Sidi Mokhtar yalla ko yaaka te wér mbir mi nak mu woo Cheikh Bass jox ko ko Cheikh Bass it yaatal ko lool ut ab commission ñu di dox guddi ak bëccëg subhanallah ñu wara a ñëw fii seet ñu kon bu ñëw dama ne ay Serigne Touba ñooy ñëw ku am ay Serigne Touba nag war ngaa waaj ndax kër gu ne li ci yëpp dana fa jël nit ànd ak moom nga xam ne ñoo bokk liggéey lépp yaatal rek ci dugg kon ku fu nekk ci dëkk bi ak ku nekk bitim réew ak foo mën a nekk ñu lay woo ci bés bii nga jàpp ci te dox ci te jëf. bis bi nag le 22 lay commencé ba le 29 ñaar fukki fan ak ñaar ci octobre ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci octobre ci lay jeex sëñ Bass Abdou Khadre mooy jiite délégation bi muy àndal dina ñëw fii taxaw ñu ci bis bi ci ndigalu Sidi Maxtaar xalifa général de Mouride yàlla na fi yàgg jóge ci biir programme boobu ci alxamis mu tolloo ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi ci la délégation bi nga xam ne nii ngay jóge Sénégal ñëw yegg si ñu fas yéene leen a teew dalal leen fii ci Gabon bu ñu xëyee ci àjjuma ji incha allah tombee ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ci weeru octobre. ñu fas yéene jullee jumaa incha allah montagne sainte mu bokk ci site yi nga xamante bi ne ci site yi Serigne Touba nekk ko fi ci Gabon ci la bokk ñu def ko jumaa tey jii ci bés boobu ci la siyaare barab bi nga xamante ne nag booba mu nekk ci libre bi bu ñu xëyee ca gaaw ba muy ñaar fukki fan ak ñeent ci la ñu fas yéene def convoi dem Lambaréné danañu fa.

nee nañ ko visité fa nga xamante bi ne ni fa la sëñ bi nekkoon muy Kaolack fa amal it conférence allah bu ñu fa jógee ca talaata ba ca suba ga la jógee Port-Gentil dellu si waat suñu dellu seen Libreville la des ca bés boobu day nekk bésu ziar fii ci Libreville àllarba ba tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre ci la fii dem Mayum Ngor foofa danañ fa de site yi nga xamante bi ne ni sëriñ bi nekkoon na fa def fa it waxtaan bu ci àllarba bi suñu dellu see ci àllarba bi alxames bi incha allah ci nga xamante bi ne dafa jógewoon Sénégal ñëw ci lañ leen di fas yéene gunge ñu dellu aéroport yokk ngir euh, jëm euh, Touba incha allah. lii nga xamante ni ñun tey jii. danoo tànn ndax bépp taalibe bu nekk Gabon rek xam ne du say coobare bopp Serigne Touba moo la tànn ngay missionnaire mu indi lu fii Gabon kon ñun missionnaire yi dajaloo Gabon tey jii jox nañu tey jii xéewal boo xam te ni dañ ko bëgg a bokk ak waa àddina bépp ñu ñëw xam kan mooy Serigne Touba waa Porgente nag takku nañ di doon say di doon benn fas yéene xaar mbooloo mépp wan leen lu mis sa gis jërë ngeen jëf. Oui, venez soutenir la caravane qui se tiendra du 22 au 29 octobre 2015 pour préparer le grand magal de Touba qui s'élève de retour en exil du chef.